barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.
fu mu toll mu joxoñ ñu fu mu fu mu jaar lu mu wax lu mu wax daanaka li dañ wax léegi daanaka projet film la quoi dafa yaa yaa ngi koy gis daal langue bi muy bind daf ko mën lool lu mu ci bëgg wax rek lay wax c'est classique nag ni muy bind waaye nag war kan la léegi ñu àndoon nañoo moom ba mu ziar yonent bi alayhi salaam ba wax sax macha allah lam fa jàng ak ñoom fa ñaanal bopp suñ bopp nee na ak suñuy wàjjur ak suñuy mbokk ak ñi aju ci ñun ak mboolem jullit ñi góor ak jigéen tabaarakalla mooy nag foofa ay ñaan yu bari dikkal na ko fa ci wesar ak ñaan yoo xam ne ci woy mu ne wesar yi jàpp ko ndax day ñëw rek mu wax ko waaye nag ci ci woy yi indi na ci aw woy woo xam ne moom rajas la daf ci jottali ko ci yónnante ba ci ak yeeg asar yeeg saaba yeeg ñëpp door a ñaan soxlaam ak soxla ñëpp waaw moom la wax yaa rabbana bil mustafa wal aali wa bil atiqi nadbi zil xilaali wa bi abi xafsin aliyi shaani al mudhiri al imaani wal ixsaani wa ma xawathu al xujratu al sharifa wa rawdatu al zahiratu al munifa wal minbari al sharifi wal mihraabi والقبة الخضراء خضراء وبالأبواب والأسطوانات وبالقباب وبالوفود الغر والأحزاب وما تلي في الحرم الشريف من سنن أو كان من صفوف والقائمين الركع السجود من ابتداء وآخر الوجود وبالمنارات وبالسطور وبالجمال الأحمد المنثور وبالبقيع وبعثمان العلي وبأبي الحسن ليثه علي وأحد وشهداء أحد وآل بيت راكعين سجد وبالمساجد وبالآبار وبالمشاهد وبالآثار door koo ñaan nag fa salliyan yàlla dafa jottaliku ci lu ne daal ca foofe ne yàlla yow suma borom yow sunu borom maa ngi jottaliku ci yonent yàlla Muhammad mi nga tànni ak ñoñam ak ci Abubakar Siddiq mi ki goreel ki tànneef borom jikko yu kawe yi maa ngi jottali ko ci abu xafsi mooy omar ibnu alxataab xalifatu saani borom mbir mu yëkkatiku ki nga xam ne ba mu tuubee bés ba mu tuubee matal jullit ñi ñeen fukk keroog la lislaam feeñ keroog la njëkk julli ci kaaba ga te nëbbuwuñ mu feeñal gëm kon feeñal rafetal gëm mu ne ak itam xujratu sharifa fi yonent nekk noonu lam làq yépp maa ngi maa ngi ci maa ngi ciy jottali ko ak nag rawdatu bi nga xam ne maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyaadil jannati moom la yonent waxoon diggante suma néeg bi te foofu foofu lañ ko suul ci nekk Aysatu ak sama minbar bi daggit la ci aljanna mu ne maa ngi ciy jottali ko wa bil abwaabi wa rawdati zahirati munifa wal minbari sharif minbar bi itam minbar bi yonent bi maa ngi ciy jottali ko ndax lu tedd la wa bil mihraabi ak mihraab yonent daan jiitee wal qubbati alxadra ak qubba bi tiim darixu yonent bi te am couleur bu verte ci biti wa bil abwaabi ak mboolem bunt yi nekk ci jumaaw yonent bi wal uswaanaati wa bil xibaabi ak ak mboolem pilier pilier bu nekk ca biir jumaa jooje ak sax qubba yu ndaw ndawaan yi kuppool yépp maa ngi ciy jottali ko wa bil wufuudil xurri ak sax mbooloo yi nga xam ne ñi ngi ñëw di ñëw jiilan baada jiilin rek te ñëpp ña nga leer naññi ngir jëm giñ jëm ci yàlla wala ahzaabi ak kuréel yi fii ñëw wa ma tuliyee ak ci lépp lu ñu jàng fil xaram yi ci xaram boobe a sharif yi lu ñu fa jàng ci alquran maa ngi ciy jottali ko wa bil manaaraati wa bi sutuuri manaara yi ci yi ci yi ci maanaam soroor yi ak lañ ci bind yëpp maa ngi ciy jottali ko wal qaa'imiina rukaa sujuud ak ñi nga xam ne ña nga taxaw di jaamu yàlla ak ña rukkoo ak ñu sujuud ñëpp laa ramassé maa ngi jottali ko ci ñoom min ibtidaa wa axir wujuudi takat bañ commencé ba kaw ni bi dooree ba ba muy jeexee fu rukkoo ak sujjóot am maa nga cee jottaliku ci yàlla lool lool lool wa bil manaraati wa bi sutuuri wa bil jamaalil ahmadil mansuuri ak yëpp paar bi nga xam ne ahmad yi yëttuug yonent yàlla muhammad ga moo ko moo ko feeñal tañ tasaare ko bu ko am gis gis ko wa bil baqii ak baqiiu mooy bàmmeel mooy armeelu waa madinat munawara wa bi usmaan ak ci usmaan mooy xalifatu saalis ñetteel ba al ali kay aji yëkkatiku daraja ndax suul nañ ko fa am na soxla fa xew ndax bés yonentu ci kéemtaanam yooyu rek ay sabsa nee na ko moo ne usmaan dinañ dem ba sama diggante yow dara du fi dox de demal dégg nga sët diggante buntu jàkka ja ba ba benn karo la wa bi abil xasani maa ngi jottaliku ci abul xasan seydina ali bin abi talib mi bàyyi xasan ak xuseynu lay fihi gayndeem ga gaynde ngooloolam ga ali ali ci njàmbaara suñu wa uxudin maa ngi jottaliku ci uxud ndax la fa xew yépp lañ fa sonn ñun li ñi am na yool lañ fa am ci ndam am na yool lañ fa dem ngir yàlla am na yool maa ngi jot uxud uxud sax montagne ba yonent mujj na wax ne uxudun jabalun yuhibbunaa wa nuhibbuhu nee na montagne uxud bi montagne la boo xam ne daf ñoo sopp rek ñu sopp ko te tax benn waaye mos wax ne yéen a mun a fen gaa ñu doon wax ne jullit mën naa mën naa amee xol bu bon ñun ñu dem bay sopp ay doj waxantuma ay nit foofu la ko jëlee wa aali baytin ak maa ngi jotli ko surafaawi aalu bayti rasulillahi raakiina sujjadin nga xam ne ñii ngay rukkoo ñii di sujjóot ci zaahir ak baatin wa bil masajidi ak jàkka yi nekk foofu yépp ci Medina xam nañ leen xam nga ñu bari dañuy dem di ziyaar sax jàkk yooye ca Medina bu ñu amee jot wa bil abaari ak ca teen ya biiri ariis ak rowmat ak yëpp bàyyi daf koy tudd daañ ci ñëw wa bil mashaahidi wa bil aathaari ak ci ak ci bépp mashhad foo xam ne boo fa demee rek mu fàttali la yonent bi jaar na fii wala saab bi jaar na fii wala fii xare nañ fi wala fii julli nañ fi wala fii jàkkan fi woon wala wala wala wala te bàyyi nag dafa leen a topp mam lu daa la wax rek da nga ko gis ci kanam tuuti fu ne dem na fa ne fii fii la lii xewee woon jot li ko yooyu yëpp nag lu mu koy laaj mu ne ko fa salli yan yal na nga julli ala rasulil akram yal na nga dolli yonent bi ay tëbb ndax moo gën a tedd yëpp wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak saabaam bi wa sallim te yal na nga ko yokk ko ba tey rek taslim mooy yokk ko ba tey rek wa aati te yal na nga may dal ubayda njaam si boppam lay wax maayi romu li muy sàkku yëpp bal bayit aatiyan hu jox ko lool parce que nun ngi tax ma waxee noonu noonu tawkiidu xafifa gi jox ko lool nag fawq maa yasuumu lu fare ko la muy waxante sax jox ko li muy ñaan jox ko sa lu ëpp li muy ñaan wax fi teel na nga jéggal ko la woo moom moom bàyyi mu ne yàlla nga ko jéggal rabbi yow sama borom sama wa walidahi ak ñaari waajuram wa naslihi ak mboolee mi doomam wa man numi ilayhi ak képp kuñ ko askan wa jaasi teel na nga fay pay gu rafet ixwati sama mbokk yi wa ummahaati ak suma suma ci olof yu wér laa bëgg wax ci suma wujji yaay yi waaw ñi bokk ak ñi nga xam ne sama yaay lañ xayral jaza yi gën ji pay summa yal na nga fay saaxibaat yi suma taalibe yu jigéen yi nga déggee ci yu góor yi itam wal taqbalana teel na nga nangu lool saayahu jëfam ji ak jaamoom gi moom Ibrahima Niass wal taxfiran te yal na nga baal ko wastaxfiran la woon moo tax mu ne wastaxfira yal na nga jéggal ko wa yal na nga jéggal lil muslimina ñeel jullit ñëpp aswadan wa ahmara moo xam ñu ñuul lañ moo xam ñu xonq lañ maanaam couleur bu jullit mën a am rek ci àddina maa ngi lay ñaanal yàlla yal na nga ko jéggal wa dammirante yal na nga alak nag aada a diinika nooni sa diine ji alxanifi diine ji di jeng walis diine yu dëngee waaw fi kulli axtaari bilaadi ci mbooleem nag goxi réew yi fu ni di fontu lislaam daal kooke laqatil ñu yaa latif mu ne wal tuuliyante yal na nga kaweel kalimatal islaami kaddug lislaam ak sañ-sañam allif yàlla nga dajale taqale jubale quluba ahlihi xoli ñooñ lislaam jullit ñi yàlla nga leen jubale al alaami ña di ñuñ xam ndaxte ku am laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yaa ngi ni montagne bu nekk ci kaw wa makkinannahu te yàlla nga jàppandal ko minal bilaadi ci réew yi réew mum bugg a def lu baax ci diine yàlla na nga ko jàppandal la wal tahdinaat yàlla nga jubal ñu li manhaji rachad ci yoonu njub ihdina sirat al mustaqim wa shahidan teel na nga taxawal dëgëral bil abdi ci góor ci jëfi sa jaam bi muy moom jaami an jumaa joo xam ne mu nii fan ji aji yëkkatiku ci zaahir ak baatin booba ma nga ca màkka zaawiya la bàyyi kawlax mooy zaawiya bañ fi njëkk a tabax xam nañ nu mu tolloon waaw daan nañ ko tuddee zaawiyatu ahli zikri madina ñu di ko tuddee maskanul xutbi sëñ yàlla yoo ko bind bañ demee nag ba mu ñibbisee ci at moomee ci la rëdd jumaa ja ñu tabax ko ca mu pare ca waaw mooy jumaa jooja ba mu paree xam nga sidna sukkari yónnee woon na ko ne ko xaatifu rabbaani moo ko xawtaaf ne ko maqaamu ibrahima man daxalahu kaana aminan yokk ca bi hudaahu maqaamu ibrahim man daxalahu kaana aminan alquran la ku fa dugg rek mucc nga mu ne bi hudaahu ci ci ci ci ci njub gañ ko jubale boo ko xisaabee mooy taarixu at miñ tabax jumaa ji waaw jumaa la wax de wal taamuranhu yal na nga dundal ko moom jumaa ja su taxawee bi rijaali ci góor yàlla yi yaa latif ay yow yaa latif wal taamuranhu yal na nga dundal ko bi salaatil qaayima ci julli farata ak julli naafila na doon jumaa ju dund am na tubaab bu mosa tuub dugg ci jàkka dugaaf dugaaf ne waay chaleur bi nekk ci jàkka julli yi lay xaw ma ko woon bu ma ko méngalee sedd ba la nekk ci église yi loolu sedd mooy maanaam par dimanche bu paree nga tëj loolu koy sedd na kii nag juróomi julli naafi la jàngale mu ngoog mu ngoog wal taamuranhu bi salaati alqaima bila xuluusi muxdasatin qaasima yemuma rek ci ñaan la jumaa yemuma itam ñu fay jullee ko jaamu yàlla waaye bila xuluusi muxdasatin ci lu dul sosuk ay bidaa yuñ sos xaasima yuy aji damm gannaaw fu mu wax nag rek musu na bidaa tudda jumaa yee fu ne parce que bidaa baaxul tuddee ku lu mu doon itam baaxut sunnaa gën mais nag tuddee ku lu mu dowut itam baaxut moo tax discours bi war naa gudd léeg-léeg ñu tuddee sunna lu ko dowut léeg-léeg ñu tuumaal sunna fekk sunna la léeg-léeg ñu wax bidaa lu dul bidaa ñu ne bidaa la waaye ku xam bi daa dawal parce que mi ngi mel ni ñu defaral la garab bañ tàmpane ko nga yokk ci lu nekk lu sotti warzuq lana madrasatan muniifa maamuratan bil ummati alxanifa te maa ngi la ñaan itam du fu ñuy jullee rek de ak fu ñuy sikkaree ngi yàlla nag ñu may itam ñu taxawal jàngu bu yëkkatiku boo xam ne dañ koy dundal ci jàngale diine yonent bi te itam ummatul xanifa maanaam ummatu ahli sunna wal jamaa ñooy ñooy ñooy toppatoo jàng yooya di fa jàngale dawaaman ya rabbi wal tuf wasturil ubayda di ko yow yàlla maa la ko ñaan yàlla nag ñu may lot fu ñëwee ci ñu te na nga suturaal njaam si koo xam ne li nga bëgg dafa rëy lool te nga xam ne yàlla ko mën a maye yàlla moo boo koy ñaan kay loo mën ci torox loo rek wal tahdihi yal na nga jubal ko wahdi bihi te yal na nga jubal jubale ci moom may kuñ hidaaya itam def ko moom itam muy buntam jub waaw wahdi bihi al abida yal na nga yal na nga ko jubal jubal sa jaam yi itam ci moom yal na nga ko def muy daaiyan ila allahi bi iznihi waxfir te yal na nga jéggal li kulli man ahsana ilayhi képp koo xam ne defal nga ko lu baax wax wala jëf yal na nga jéggal kooke itam wa jaazihi te yàlla nga fay ko anhu walis moom bar moom Cheikh Ibrahima yàlla nga fayal ko kooke aljazaa pay ga al ahsana gay gay gën ji rafet ahsana ilayhi ak jazaa al ahsana mu ne ko aslix yàlla nga yëwénal lahu yàlla na nga ko yëwénal al azwaaja soxna yi wa saraar yi ak taara yi Sénégal nag dafa am discours mel ni milkul yamin dañ koo folli buñ ko defoon débat xam-xam ma dégg ko ba ma xam lu tax wa kulla xaadimin ak bépp bëkk néeg lëxoo bu koy liggéeyal wa xaar yi ak bépp aji jàng ci daaraam ñaan gi léegi mu yaatu de wa xaqiiqi yàlla na nga dëggal al uluma xam-xam yi wal irfaana ak xam-xamu yàlla nga may la ñu am taxqiq xam nga taxqiq boo ko tokki moo taxoon bàyyi di ci am daan wax ne bu ñu jàng téere boo àggut itam doom toogal rek déglu mu ne ah mu ne ndaxte moo gën ah ma ne luy ah mu ne mooy déggoon nga ko mais des naa leer boo ko fekkee te feneen rek da ngay gaaw a dégg mu ne ah nag yaa ngi koy door a dégg taxqiq nag du am yooyu yëpp daf lay wóor aslih lahu al azwaja wa sarari wa kulla xaadimin lahu wa xaari wa xaqiqi al uluma wal irfana wa makkini al imana wal ixsana te itam liimaan mi nga xam ne mooy gëm yàlla ca la ko yonent ci jàngale ixsaan di teewlu yàlla sellal ba mel ni boo koy jaamu mi ngi janoog yow nga gis ko mu di la observé te mu ne benn la ndax boo ko gis itam mi ngi lay gis yal nag ñu may ñu ñu ñu ñu ñu badaañu ca wa nëjji naa te nga musal ñu albasa maanaam min albasa yi ci xay wa daraay ak lor bu mu mën di doon ci fitna ndaxte léeg-léeg baat ci arab ñu ne la mansuubun bi isqaatil xaafidi wal wal wa nëjji naa min albasa yi mu ne wa nëjji na albasa ma nga ca yoon wa wal tuuti naa te yàlla na nga may may ñu al aala ak xéewal yi wa naamaa ba tey ak xéewal yi waxëbte yàlla na nga may lanaa yàlla nag ñu may wusuula baytika alxaram ñu egg ca sa néeg buñ xormaal ba nga dégg ci ba tey ne mi ngi confirmé ne ziyaara la jiital ba léegi eggagul màkk yéen ñi koy déglu ànd ak moom ba muy tàggoo subhaana lay saxara ba léegi ah discours yi wax ne dafa jiital aj bu leen ko déglu ndax bàyyi gën a xam boppam waaw wa wahab lana wusuula baytika alxaram wal taqbalan sayi sayid al anam te itam lu ma fa def yàlla nang ma ko nangul ci barke yoon ci yàlla muhammad wahab lana rujua saalimiina te nga boole ñu ci nag ñu aj ba pare umra ba pare ñibbi suñu réew saalimiina mbir mu ñuy way mucc li diini wa dunia suñ diine mucc suñ àddina mucc wa gaanimiina ak mbir mu ñuy way oomal màng saaliman xaaliman ku tukki moom nga bëgg ñun ñëpp yàlla yaa may saaliman xaaliman saalimiina xaalimiina suma salaatu wa salaamu al abadi ala nabi mustafa muhammadi wa alihi wa sahbihi al alaami man dawaxu l bilaada bil islaam bu tëjee ko julli ci yonent bi julli ci saabaam yeeg aaloom ndax moo koy mottali soo ko deful julli gi day wàññeeku ñan la ñoom saaba yi mooy ñi nga xam ne ñoon ñoon not ba not mais ñoo nooyal réew yi ba lislaam man faa dugg waxoon nañ fii te dinañ xam naa ne waxoon nañ ci gàmmu ga ne na nit ñi xam ne xeex yonent bi xeex benn duwu ci woon xeex pour nit ñi gëm ndax nit ngànnaay mënu koo gëm lu mais ñi tere woon ne kenn du ko fi waxee ñoom ñoom lañ mujj di xeexal ku ci nangoo tuub baax na ku nangoo maye jàmm baax na li ci des nag yàllaa ko digle uzina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadirun bàyyi mu ne wa kunna nazuru lxujrata alsharifata dubura kulli salaatin maktubatin walhamdulillah bi sifati lati dakarnaha la ma nekk yëpp Medina nag waxtu wu ma jullee rek ci subaar takkusaan timis gaye suba dinaa dem ziyaaraat mu ne kenn ma la waxoon nag noonu laa ziyaara xam nga waxoon na ko pare noonu lay noonu lay defee seetlu naa ne lim bind nii ci ajam gu njëkk gii man aj yi ma ànd ak moom gannaaw gi aj yu bëree bëri noonu lay ajee ba léegi ba ci ajam gu mujj lenn rek li moo ci yokku ci ziyaara bi xam nga xoon neen jooyant mais nag fii bii moom ba mu tàggoo moom ba pare moom moom jooy na ba dañ ko téye moo ko tële daal loolu moom moo gannaaw gi nag mun a ñëw moom de dafa mel nii bi mu tàggoo bay wëlbati ko dafa dafa dégg kaddu di ko ci dara fi ne ko tadhabu anna yaa ngi dem nag waaw man loolu de si bàyyi moo ko wa idan sarafna an ziyarati najlis ma al axawati fi majlis ahli sufa fi lmuwajahati sharifa su ma jógee ca fa may ziyaara yonent bi damay tourné nii nag dem ca axawaat yi xam nga luy axawaat axa ci luxay turk mooy xuddaam yooyu dawlal islamiya xilaafal islamiya al osmaniya daan daan jox xaramay ni muy ay góor ñoo xam ne dañoo bëgg ñu fare war rekk biir jàkke yonent ba ak biir xaram jaxasoog ñëpp di ba nga xam ne ñoom dañ leen di kii daal dañ leen di booleeg docteur mu mu kii leen ba ba nga xam ne ñoom maanaam dootuñ soxla am jabar dootuñ soxla dara waaw yaakaar naa ne jaru ko woon waaye nag am na te ulama yi fekkee nañ ko ah te yëguma luñ ci wax waaw ñooy axawaat bàyyi daf leen di fonk ba ne wa bil axawaatir xurri da- daf leen di fàttaliku di jottaliku sax ci ñoom mu ne walam tunsinil ayaamu waxti ya jaalisan maa al axawaatil xurri wal fikru munsajim du ma fàtte mukk àddina mu du ma fàttaloo maa maa ngi toog ak axawaat yi foofa te majlisu ahli sufa fekk suma xalaat a ngi cohérent waaw waaw te ñoom maanaam axawaat yi mu ne ñu leer lañ ah doy na ci rek sa julli juróom benn du la manqué ci jàkkee yonent bi ah xam nga waxoon naa leen ne Bilal ma ne xale yi ci benn waxtaan bu yàgg may leen Bilal euh, boo bëggee xam nga ne lam fàttali ko rek ne mooy njëkk a nodd te ba fi yonent bi jógee mooy nodd tax naa kenn du nodd dem maanaam mosut a julli lu may ci gannaaw yonent bi loolu doy na nga ne wa ida garabati shamsu namshi li rawdati sharifati li salaati fiha loolu bëccëg la bu jant sooyee nag ñu dem ci rawda ba foofu fi yonent waxoon maa bay na bay ci yoomin bëri léeg-léeg muy xat am ñu julli sax rocceeku pour seen morom mën a am fuñ kii mu ne li tax ñu fay dem nag nasmau qiraat al imam nga xamee ci ne mi maanaam mu kabiraatu soot amutoon opallar amutoon mu ne ñu dem ba foofa ndax ñuy dégg jàngi élimaan ji tey nag foo tollu dégg fii sax da ngay dégg wa ida kaana waxtu saxari nadxulu min baabi jibrila wa nusalli ma shaa allahu fi rawdati wa najlisu fiha bu fekkee ne njël la nag ñu ngi duggee baabu jibril su ñëwee ci rawda bi julli fi lu soob yàlla ñaari rakka ñeenti rakka juróom-ñetti rakka téeméer rakka moo xam lu soob yàlla mu ne buñ paree nag ñu toog ca rawda ba bañ julli suba wa naqrawul wirda laazima foofu la ñuy wirdoo wa nu wa wa nasilu ziyaarata bil wirdi julli naa ziyaara naa rek toog wirdo wirdo wirdu laazim wa wa nu timmu awraadana inda majlis ahli sufa yeneen awraadu ixtiyaari yee nag ma tourné waa dem ca majlisu ahli sufa foofu laay toog mottali ko wa ida xallati naafilatu sallayna wa nsarafna ila almanzili lil futuuri bu demee ba nga xam ne naafila daggan na jant bi nee na juñeet ñu naafila ay rakka dellu ca kër ga pour ndékki dégg bu baax de wa narjo ila al xaram xam nga kii amul répit dama ndékki rek ñëwaat ci xaram bi te moom doon na ma wax ne fii xool boo fi lekkee doo gaaw a xiif moom ma ko wax ñam ñamboo moo barke wa narjiu ila alxarami imma ila rawdati aw ila mahali ahli sufa su ma delloo xaram kat jëw ma ci ñetti balaas ñaar rek benn rawda wala ci ahli sufa wa aqamna bilmadinati lmunawarati bifadlillahi wa minnati ixda wa ishrina yowman bi yowmi duxuli walxuruj soo compté bis bi ma egsi ak bi ma déparé ñaar fi fan benn laa fa am ñetti semaine wa ramastu lidalika bi qawli bi tayibi yowmin qad aqamna bi tayibatin ala ruba yowmin laka minhunna saalixu waaw bés bu neex laa fa toog mu ne moom laa junj ci kii boobu xëy na tayibu yowmi boo ko xisaabee mooy mu wëkk ak benn bi ak génn bi mu ne alaa waawee rubba yawmin bëri naa bés la ka boo xam ne am nga ko min hun na ci bés yooyee saalihum baax a baax a baax xam nga loolu umrul xay si moom ba muy caali ci lay laa moo ko waxoon wala siyama yow mun bi daarati jul jul yi mais daarati jul jul fële ko gën wala naxruju min alxarami nabawi gaaliban illa li tanaawuli taami baada duhri aw xaajatin daruriyatin misla dalik ñëw naa Medina am naa fu ma dal de waaye nag jàkka ji moom xaram bi duñ fi génn mukk ñu lu may pour dem lekki wala rek soxla su mënta ñàkk aw ziyaarati baadil mazaaraati wala ma dem ci yenn ni barab yi war a ziyaare ka jabali uxudin wa saydina xamzata wa shuhadaai uxudin wa maxalli kasri rubaaciyati nabii sallallahu alayhi wa sallam wal baqii waaw dinaa dem nag léeg-léeg léegi ma dem uxud jabal uxud def fa ziyaare ndax shuhadaa yaa ngi fa sidna Hamza ak shuhadaa uxud foofa danaa dem itam fa ci ak xareb uxud ba mu yàqoo ba seytaane yuuxoo jaxase nit ñi ne rey nañ yonent bi waaw lay demee noonu alors fa fañ demee woon fañ demee woon dëgg jëm ba danaa fa dem danaa dem ba xew fa ñu fa ñu suul waa Medina mu ne la waqat ataynaahum miraaran ñëw nañ ñë- dem na ba xew ay yoon wa tasharrafna bi ziyarati saalisi xulafaa yi ah te am nañ teraanga ju toll nii Ousmane ibnu Affan kii sa kii ñetteelu xulafaa wu yonent bi ziyaara nañ ko fa ak Abu Saïd al Xudri ak Fatimatu bintu Asad ndeysaan ak Xalimatu Saadiya kanam parole yonent bi ak Ibrahim ibnu Nabi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ba muy faatu yonentam ko tiim lam dëgër dëgër rongo yi tuuru ñu ne ko yow sax da ngay jooy mu ne mu ne xol bi dana naqari euh, dina jàq maanaam dina am dina tiis bët yi dina sotti rongo yi mel ne du ma wax mukk lu neexul yàlla Euh, Ibrahima sa tàggo tàggoo gi ñu tàggoo yow daal métti nañu wa inna ala firaqika ya Ibrahima la mahzunun moo tax am naxaar moo métti la duur lu bon wax lu baaxul moo bon fu ñu jëm ak alaku nañ yooyu loolu baaxul wa mararna bi darixi imamina wa imami al a'immati malik ibni anas wa nafiin cheikhihi déglu waxin bi ziyaare na ziyaare na ziyaare na mu ne ñu romb ci bàmmeelu suñu i- élimaanu ngir élimaanu élimaan yi ci des yëpp malik ibnu anas ak nafix sëriñam rek di tënku ca lam jaayante woon ne du ziyaare wala yiwudul tijaan suy tëbbu waaw mën na koo ñaanal daf ko war a sopp mën na koo ñëwal waaye moo tax mu ne ñu jaar ñun dem nañu Bagdad ñun ñu ànd ak bàyyi ñu visité ñu jullee jumaa ci jaamiu Cheikh Abdou Khadir Jili usratu Cheikh Abdou Khadir ya fa des invité ko añ bañ paree fa lañ añee waaye nag bi ñuy ziyaare nag ba egg nag ci dariixu Cheikh Abdou Khadir Jili ba daf ñoo geesu ñun nañu waaye yéen nag am leen fii moom mu wéy ba ci biir du mbir du maanaam du xam nga bàyyi kenn du ko ay ziyaare kenn mais taalibe yi la ñuy yar soo ko ni kenn ku nekk da ngaa foog ne kii la ah kii la ah kii la ah kii la non du noonu loolu rek la ñuy bañ da ngay da ngay jàpp ci dara ponk yi ci des yëpp moo tax ibrahima rayahin rabbi inni saddaxtu kulla waliyin raayan qadrahum bi ayni ixtirami gayra anna min salimin huwa cheikhi loolu la firee li cheikh wax ci mbiram ziyaare nee na yàlla dëggal na képp kuy waliyu waaw fonk naa ko yëkkati naa ko mais nag cheikh Ahmad Tidiane mooy suma sëriñ loolu dana nekk ci waaw imaamul ay mu ne wa mararna bi darixi imaamina wa imaami al aimati malik ibne anas wa nafiin cheikhihi wa azwaaji nabi ak soxna yonent ak tisa juróom-ñett yi rép ñu ngi leen suul foofu aïcha wa sawahibaatiha aïcha ak u jëm ya wa banaatihi ziyaare na doomu yonent yu jigéen yi ñu fa suul roqayatu ak zeynabu ak umu kulsum wa ammihi al abbas fa ñu ko suul wal xasan wal batool ummi xasan sibt ak fatimatu yaayam wa yuqaalu inna badana aliyin naqalahu lxuseynu ila albaqii xam nga xuseynu moom moom moom dafa nekkoon masaatu bu mag ci karbala bañ ko raayee dañoo dagg bopp ba xam ne àddina lu dara dagg bopp ba am na benn jigéen juy jaay boppam joo xam ne am na ku mu waxoon ne ko soo ma indilee bopp xuseynu rek ma nekk ci sa waaw bañ kii rek mu gaawtu rek dagg ko rek moom ma ngi dem dem eeku ci guddi ne ko indi naa la koomam àddina ak alaxira mu dugg rek mu ni ko mu ko mu ne ko lan la mu rek ñu ne ñu ne jigéen ji yuuxu ak yuuxu rek gisatuñ ko ci guddi ga ba ba sànq ci suba kon waaye lam na lu sax amu ko bopp ñu ne nag xam nga wax nañu suuli nañ ko misraak fu nekk mu ñu ne waaye bàyyi ne wa yuqaal inna badana aliyin maa ngi naan sax Xuseyn ma ma ma ma ngi faal Ali Ali ibn Abi Talib bañ ko reyee yaramam toxal nañ ko indi ko ba xew ma xam nga ci Iraq lañ ko reyee waaw Ousseynou lañ reyoon noonu moom ba am na bàmmeel fu ne waaw ñoom Ousseynou nag moom waaw alors alors alors mu ne wa yuqaalu inna badana Ali naqalahu al-Huseynu ila al-Baqii fastaxdarna dalik mu ne ñu teewlu ko ba ñuy ziyaare wa yuqaalu inna badana ali naqal alxusain albaqi fastaxdarna dalik wa rasu alxusaini aydan ala qawlin mu ne bopp xusain boobu ma leen doon xissa gaaw ci egg itam am na ñu wax ne ala qawlin ñu wax ne moom itam indi nañ ko toxal nañ ko indi ko ba xew wa ammaatihi bàjjani yonent bi siyaar nañ leen suma shuhada alladina jurixu bi uxudin wa maatu bil madina am na ñoo xam ne dañ leen blessé woon ci uxud ñu jekkali ko Medina fañ leen suul moom itam ziyaare naa leen zurnaahum wa arjuluhum ila al qiblati ñoom bañ leen suulee seen tànk yi moo jublu qibla bokkut ak ni ñuy suulee léegi wa dahabna ila masjidi quba yowma sabti marratayni amalan bi xadisi man tatahara fi baytihi wa ataa qubaa wa salla rakaatayni kaana lahu ka ajri umratin tammatin masjidu quba dem naa fa bésab samedi mu ñëwaat ma dellu faati dem naa fa ñaari yoon ndax xadis ji wax ne yo- yonent bi nee na ku ku jàpp ku làpp ca néeg ba mu nekk dem xubaa masjidu xubaa julli fa ñaari rakka dafay mel ni yaa ngi am yoolab umra bu mat sëkk am na sax ñu ci yokk benn riwaaya tàmmatin tàmmatin am na sax ñu ci yokk umratin ma'i boo ànd ak man loolu yëpp yàlla mën na ko aw kama qaal wa fiha raayna taqata alkashfi lati inkashafat lahu minha sallallahu alayhi wa sallam alkaabata xiina arada taxwil alqiblati mu ne ba ma demee masjidul xubaa gis naa yonent xam nga dañ daan jubli jublu baytul maqdis xam ngeen xissa bi ci baqara yàlla digal ko ne wëlbatiku jublu léegi kaaba ga ci biir julli la ko fekk mu wëlbatiku ci biir julli ji mu yonent bàyyi ne dafa amoon inkishaaf mu janoo kaaba gi yàlla won ko ko ci ak ci ci ci ci mucjisa mu mu mu jublu directement ci kaaba ga waaw mu ne inkashafa yankashafu inkishaafan mooy uñeeku na axaqu an taqum fi waaw moom mooy masjidu Quba ndax moom lañ njëkkoon a tawax wa mabraka naaqa ziyaara na itam géwélam ak yonent gi fam gooroon jógaat ndax dañoo ñëw gaa ñi di wax naan kaay fii kaay fii mu ne bàyyi leen fa innaha maamuratun bàyyi leen gëléem gi ci ndigal la nekk gëléem gi goor fenn ba mu yàgg mu jóg dem goor fenn fi mu njëkkoon a goor fi mu goor tàllal baat bi luur mooy bàmmeel yonent bi donc ci jàkka ji feneen fa nag fa la fa la fa la fa la daloon ndeysaan ba mbark naqi wa maxalla nuzuli l ayati kullu dalika muallamun foofu dem ña ngi ko defal màndarga aaya ji doon wax qibla qibla qibla ba muy wàcc foofu itam daañ la ko won wa zurna bi'r alxaatam wa hiya biiru aris allati fiiha xaatamuhu sallallahu alayhi wa sallam min yadi Usmaan xam nga dem na biirul xaatam ma ngi fa ba tey ne mooy teen bi nga xam ne sidna Usmaan jaaro bu yonent bi bi amoon xaatam bi mu amoon liñ koy liñ koy kilee faddalu bismillah sidna Usmaan ba da- daf ko daf ko kii woon waaw waaw mën ngeen toog fa tey mu yaatal fii Seydina Ousmane dafa dafa dafa dafa amee woon ci baaraamam jaaroob yonent bi mu daan tamponné taxaw toog ci biiru aris mu rëcc ko mu rëcc ko taabi fa am na sax ñu ne junj na junj la woon ci problème yi am yëpp gannaaw gi wa ilati jalasa alayha sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin wa umar wa usmaan wa sharibna min maihi al-azbi mu ne teen booba yonent mas naa toog yor ay tànkam Aboubacar toog yor ay tànkam Omar toog yor ay tànkam Ousmane toog yor ay tànkam waaw yonent def fa ak mojisa waaw ne maanaam ñaari way shahid ak ak ak wax li naa yor xew yëpp wa chérif la may yadd ndox mooma ma ngay neex man de am na ay at ci gannaaw naan naa ca waaw daal ñoom nag dañ ko ñemewul rek waaye li ñuy barkeloo rek dañ koy bëgg wa in kaana ahlul madinati kullan la yashrabuuna illa minha waa madina ñoom ñoom moo leen gënal ci la ñuy naan wa baqitu abaarihi saba am na juróom ñaari teen yu ñuy askan yonent bi yooyu yëpp dem naa fa am na ku ko way ne arisun wa garsun rawmatun wa budaatun kada baddatun qul bi ruxaain maa al ihni li ma tax kay waa ji ma déggoon mu doon firi ci al alfayda ne biiru raja biiru xaar kay biir moom biiru jë ah waaw bayru xaaral la jaay ma li ma xam ne man dafa ne ki ma déggoon nag dafa ne biiru rajaa mel ni mel ni maanaam teen ab yaakaar bi ma ko daf ko kii rek daf ko yàkkamti rek wa zurna masjidal xamaama jàkka la joo xam ne moom itam xam nañ ko ñëpp dem nañ fa wal masajid al xams al xamsa alati fi l xandaq masjidu ali masjidu omar masjidu abi bakri masjidu salman masjidu huus sallallahu alayhi wa sallam waaye masajidul fatxi nit ñi ba tey maanaam boo dégg ñu ñu naan kullu ziyaara jigéeni Sénégal yi ko gars yi na yóbbu ko kullu ziyaara jàkka yooyu lañ ci jublu wa zurna masjidal qiblatayni wa fii atharul mihrabayni dem nañ fa maanaam commencé julli gi fii mottalee ko fii kon ñaari xibla la waaye nag ilal abad xibla mujj bi moo soppeeku xibla wa fii atharul mihrabayni mihrabin ila bayt almaqdis kama anna masjid annabawi fihi alamatu almihrabi alladi kaana ila bayt almaqdis même jàkke yonent bi daañ la woon ba ñuy temps bañ daan julli jublu bayt almaqdis fañ daan jullee ba tey xam nañ ko waaye nag mihrab bu abad bi mooy ba fa nekk ba tey amal masjidu nabawi fa fa yakillu alqalamu an wasfihi muttasiun barakallahu fii mi muzaxrafun maktubun fi jamii arkaanihi ayatun wa ahadisu nabawiyatun wa suwarun maktubun ala jihati alqiblati satrun fihi alu imran maanaam day observé comme ni nga waxoon rek mi ngi mel film quoi mu ne jàkka yonent bi nag kenn mun laa melal na mel ci taar ak yaatu xam naa tey waxatu ko ko tey moom waxatuñu ko woon mu ne barakallahu fii dañ ko saxrafa rafetal ko bind ci rukun yëpp ñu bind ci ay ay alquran ak i xadis ak ak sax saari lëmm ndax boo demee ci jiyetul xiblati bind nañ fi alu imran waaw am na fuñ bind baraa am na foo xam ne bind nañ ci turim turam yi moom yonent bi alayhi salaam foo xam ne bind nañ fi suratul fatxi bi maa i dahab loolu nag salaatin yi nekkoon turkiya te nekk xulafaawul aalamil islaami ñoom yu bëri ñoo ko daan def di ci dépenser xaalis bu bëri wal xibaab qaraatu fiha surat al jumaa xubba yi am na fu ñu bind surat jumaa mu ne jàng na ko ak xaashiya ak almunafiquna ak lixlaas ak suratu nasri xam nga yëpp ay saar la waaye nag itam dafa jaxasoog yonent bi lool wala tara xubbatan min al xibaabil musaqafi biha illa wa fiha suratun min alquran mboolem xubba yi fa nekk yëpp xam nga dafa bëri ay xubba yu ndaw ndawaan boo ci gis rek bind nañ fa dara ci alquran wal burdatu maktubatun fi judraani mahalli nisaai wa wal mihrab alladi kaana huwa musalla nabi saa sallam burda itam ba jamonoy neex dañ ko bindoon foofu yëpp mais am na sax yoo xam ne tey boo demee boo seetloo ci xujra bi wër darif yonent bi xam nga dañ ci bindoon bind yoo xam ne mi ngi nekk ci lu dëgër mu weñ la xawma mais jéem nañ ca effacé waaw am nañ ci jéem ah yaa xayra man du fi nag fi fi fi a'damahu wa taaba min tibihin alqaa wal akam ah waaw waaw parce que boobu xam nga kooku sax bil munasaba bàyyi ci ci manasikam bi mu taalif bam ba mu ñëwee ba foofu ba nettali ut bi yaa xayra man dufina fi lqaa'i aadumuhu wa taaba min tibi min tibihi min alqaa' wal akam wa nafsi fidaaw ila axiri yow mi nga xam ne yaay gën ji kuñ suuli yaxam yi ci barab bu mu di doon nangu nangu nangu bàyyi na daal li gën a wér ci nit yi mahabbatu buñ tudd yax bu ñuy wax yonent bi ndax wér na ne yonent yi seen yaram yi suuf du ko lekk mu ne kon nag man dama naan yaa xayra man abiqat bi tiibi turbatuhu fa taaba min tiibi tilka alqaaw wal akamu dali kon ma ngi ca téere boobu téere boobu gaa yaa ngi mool mais gisaguma kooku mool waaw parce que ragaloon naa ko ragaloon naa ko waaw parce que boobu moom yëpp yëpp maa ngi nekk ci digg secrétariat boobu waaw boobu ñu ngi doon dem Fuuta sax am na lu ci bàyyi taalifee ci yoonu Fuuta bi waroon man de buñ ma joxoon ma wéral ko ceng ceng waaw allahu akbar xam ne mën na mihraaba ñu ngi ko bind haada mihraabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala aysar ñu ne asalaatu imaadu diin waaw ca kaw loolu lañ bind ci mihraaba mihraabu yonent baa ngi nii pour que mu leer benn fii ci côté Ndejoor ñu bind ne ne yonent wax na ne julli mooy kenu bi téye diine ji ca kaw buntu ba nag ci Ndejoor ñu bind al imaanu la ya inna al imaana la yarisu ila al madinati kama tarisu al hayatu ila juhriha am na fu ñu fa bind ne yonent nee na gëm yàlla day rasu rek di ñëw Medina ba- comme ni jaan di def ba xam wal aysari ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna ci càmmooñ ñu bind ci loolu yonent waxoon ne suma diggante néeg bi ak sama minbar bi dër la ci dëri aljanna yi maktubun dalika ala rukni min arkaani xujrati sharifa bindaat nañ ko itam beneen ci néegu yonent ba ci beneen côté wa tali ustuwanatu lxaras wa ustuwanatu lwufud wa fi safi thani ustuwanatu abi lubabata suma ustuwanatu aïcha maanaam kenn yooyu wër kii bi bii nag am na am na ci affaire xat nañ mais foog mu wax leen ko ustuwanatu abu lubaba xam ngeen ne ci siira ci ci tafsir itam mooy abu ñooña wa ala salasati alladina xullifu bañ amee njuumte xam nga ya dañ leen a boycotté yàlla yedd leen abu lubaaba moom am xasaasiya lool dem ba ci ustuwaan boobu nga xam ne mi ngi sës ci darix bi mu yeew fa boppam ne fekk yàlla baalu ko du du bu ko kenn yeewi wa waaw wa waaw alors nag kii ñoom seen waa kër sax duñu waxate ak ñoom waaw ba aaya ja ñëwee nag su ma tabaalim lie tuubu ñu gaawantu wax leen ko mais usonde boobu da ba bàyyi daf ma daf ma sant dara ma boole ko ci ci suñu aj gu mujj googu alors toujours lu léegi sax damay dëgërul su ma koy waxam melul ni bu njëkk bon dañ ñoom ziara bàyyi ngi am bàyyi ngi def xasidaam bu rafet boobu sifaari ilal hadi ñu ñëw ba ci mu mu xaabal nga xam nit ñi dañu war a gaaw faa jóge bu gaañaa ngi puus mu ne ma jàngal suñ suñ ziara bi suñ nuyoo bi ma commencé xam gi ma xam barab yi foofu ak affaire yi ma may jàng ndànk mu ne ma irfa sawtak waxu ko ci olof da ci arab rek ma ne amri ila allah ma commencé ma commencé sifaari ila alhaadi li dalika afraxu qiraaya liqa xayri lwara wa huwa afraxu dawaci madinati jammatun fa jazbun wa shawqun la yazaalu yubarrixu فطبعا أحب المصطفى فإشارتي إليه وثورا بالوداد أصرح فيا ما أحيلا رك الكاله مغ رك رونغي كوك استوار بو غراو لا لا نك ما تري بام جيخ كن الكات في مجو دف سيركل pour wër ñu ñu bañu fa lii du ma ko fàtte mukk waaye nag bàyyi tabib la ndax ndax jooy alkaati bi lu garaaw la foog ñu fay xaal bi léegi ba xam nu ñuy fay xaal bàyyi doof loxoom ci poosam rek génne xaalis bëri dugal ko ci poos waa ji xaal bi fay parce que bu ñu ko gisee muy jooy lu garaaw la itam foofu booy kéemtaan la de foofa nag ñu dem kër ga ñu dem fu ndox bi nga wax tey si sama dafa am souvenir ñu dem tey si xasida bi jàng nañ ko ci noonu kéemtaan la bàyyi na ma xam nga buntu kër yonent bi ma ne ko yaa ma ko woon xam naa ko mu ne ma demal nag ba ca buntu kër yonent bi nga jàngaatal ma fa xasida waaw waaw booba nga nga xam ne mi ngi ci rawsa bi bi ci wetu digg bi ma dem ba foofa ma jàng xasida ba ba mu jeex ma ñëw ci ustuwaana bi julli ñaari rakka ne yàlla seede ne jotal naa ah yow jeexagul de ñu dem bàyyi jël ñaari nusxa ci diwaan Chifaawul Asqam biñ mooloon Paris ah loolu lu garaaw la mu ne ma demal ba ca rawda ba rek nga tegal ma ko fa rek dem ma ne simple moom ma ñëw ba ci ustuwaana bi Abu Lubaaba ma teg ñaari téere yi julli ñaar rakk ne allahumma shahad ne jotul na ko rek dem nangu ma geesu ndax óolu ma suma geesoo dinaa leen seenam de billahi ñëw ne ko def naa ko jazakallah xeer moo tax bi ma ko tuddee rek sama xel daj yooyu waaw آها أبو لبابة اسمه سبحانه عائشة وتعرفنا برجال صلحاء وأولهم صاحبي حقا ali ibn abdullahi tayib mu ne nag ma xamante fa ak nit ñu yiw dëgg-dëgg xam nga ñooñu baax nañ de mu ne kë ca njëkkoon mooy suma suma suma taalibe ali ibnu abdullahi tayib moom waa sudan la wa qaddamtuhu fi tariqati tijaniyati wa ataytuhu baada asrariha ma jox ko taqdim man waaj moo ko laaj jox ko itam lenn ci mbóoti tariqa bi wa huwa waxidu asrihi wa faridu dahrihi fi lilmi min xafadati limam shafii parce que mu ne kii kii abdullahi ali bin abdullahi tayib ñëwaguma ci tayib sudan bi kii sëtu imaamu shafii la bàyyi ne ku wéete jamonoom la ci xam-xam seet la bu baax la li may wax imaam malik imaam shafii ahmad ibnu hambal al imaam abu xanifata ñooy mooy aimmatul muslimin al arbaa imaam shafii mooy ki ngeen xam imaam shafii sëtam moo jël ci bàyyi wér doo nekk taaw ga ci ñu xamagul sax kooku moo gis sultaan Bayero ameeru kanu xamul ne bàyyi ngi fi utul bàyyi parce que xamul bàyyi bëgg naa am daal ci ajam gi nangam nangam kooku moo ko gis ni mu baaxee di kilifa moo ko tegtal ne am na ku fi ne seet ko nga xam nga naan ci dara ba maan yi woon ni ne ko dangaa bëgg naa dema loolu kenn normal mu mu amir amir ma di seet bàyyi fekk ko ca rawda ba ndax ni bàyyi waxee xam ngeen ne ku koy seet ci rawda ba rek nga ko mën a fekk bëgg naa mu leer ñu naan bàyyi daf ko seen dafa seen bàyyi ci xaram bi ci màkka muy wër mu naan huwa huwa non wax jooju wérul wérul na leer naññ mukk ki ko wax sax mi nga dëkk commencé yi xam naa ko xamul li fii voilà xafiidu mu ne wa huwa waxidu asrihi wa faridu dahrihi fi lilmi te loolu tumuranke wu min xafadati limam shafii wa qaddamtu ahmad almuxtar ben bella kooku waa sudan la du ben bella mu jazair de di yàgg na aydan mu ne kooku itam jox naa ko taqdim wa qad warada alaya yowma aljumuati sultaanu kanu gis nga de kan xam nga tartib bi ah mi ngi ci Medina te itam Shafii fekk na mu doon lim doon ba ba yee ko ci kooku di kuut bu ne nag waqad warada alayya yowma aljumuati sultaanu kanu bésab ajjuma sultaanu kanu ñëw na ci man almusamma bi abdillahi ibni abbas bayero wa waziruhu alallaamatu suleyman ibni ismail amoon na wasiram boo xam ne ku bëri xam-xam la suleyman bin ismail wa talaba minni tajdida wa taqdima fa saadtuhuma ñu ne ma dañoo bëggoon nga installal ñu suñu wirdo maanaam ñu jàpp ci yow te nga may ñu taqdim mu ne ma dëppoog ñoom ci li ñu wax bi isharatin min tilmidi alsaadiqi ali tayib almazkur suma taalibe bu dëgg boobu ñuy wax ali tayib surtout imam Shafi bi moom moo mën a gaañi ñu baax lañ mais nag wax ji nii rek la mën a mel mais wax ji gàtteewul nii de parce que parce que bàyyam ma ko wax du man kenn sax ah bi bi sultaan kanu ñëwee mi ngi ko fekk ci rawda bi waaye bi mu koy taqdim bi mu koy tajdiidal dafa jóg ànd ak moom ba ca mu waajaha sharifa fa ñuy ziare xam nga ne 37 nit ñi bëriwul te nit ñi yëfi jafewutoon nii mu ne foofa la ko eesalale am na ñu mu àndaloon ay buur yu ndaw ndawaan ku ci bëgg wirdu mu jox la ku bëgg tajdiid mu tajdiidal la waaw loolu moom kay wa talaba minni tajdida wa taqdima fa saacatuhuma bi isharatin min tilmidi sadiqi ali tayib almaskur wa taaraftu bi ajillai ahli tariqati mu ne nag xamante naa faak ñu màgg ci waa tariqa bi wa jaddadtu lahum tariqata ku ma ci gis rek da ngay ñëw eeslu ci man maanaam tëjdid ñaar la mun naa bokk ak yow sëriñ ñu daje nga am shuur nga ne ma eeslal ma dara na ko ci faxasal ma téere xàjjal melaxal ma ak nag da maanaam tëj di bii ñuy wax ne mooy mu bàyyaa bu bees dangaa jëloon wirdo ci kii nga ñëw estu ci kii mu nekk sa xaayit Cheikh Omar Fouti ci tarixa bi xamuñ ko ko gën a mag nee na ci rimaaxu ab fasloo ngi nii boo xam ne dama ci bëgg a leeralal nit ñi ne tarixa bii ñu nekk képp ku ci nekk jiite ci ay nit boo demee bés ba gis ku la gën a mët ci tarixa bi yow yaag ñi nga jiite ñëpp war ngeen a toxu ca kooku loolu mooy toxal toxu man day doon kenn nit wala ñaari nit wala kii demee noonu mais du force mooy ku bëgg maanaam ku ku infirmier doon faj nga gis professeur gaa dem ci moom te bul bàyyi kii ndax bu ñu bëggee piqûre mun nañ laa booleeg infirmier waaw wa taaraftu wa qaddamtu aydan abal qasim ibni ibrahim min ahli jinayn min sudaani misr abul qasim mooy bàyyu waa jële fa nekk xam ne keroog bi baabala mi nekkee xartuum ci weer yu passé passé nañ ma ko ci téléphone ma euh, kii euh, euh, ki nekkoon directeur banque centrale la ilaha illa moo moo doom abul xaasim abul xaasim si boppam ñun jot nañ koo fekk ci jamono ci Soudan waaw booba maanaam xasida ya bàyyi daan jàng maanaam diwaan yam jotoon a pare tey sur wusula sël iksiru saada sëlbu sujun yooyu pare woon tam daan ca jàngi bis bu set ci rawda ba nusxa yooya kii moo ko yore abul xaasim ñi moo ko yore wan na ma ko ci Soudan maa ne lii kat ay wooy yu ma doon wooy foofa la maa ne ko salaamun ala qabrin xabaahu ilahuna bi tadmini aadaai lxabibi lmuadami nuyu bàmmeel bi nga xam ne yàllaa ko may mu làmb cëri soppe bu màgg bi naan fa lañ ko suur salaamun ala juz'in tadammana kullahu mu ne ko maa ngi nuyu wàll woo xam ne une partie boo xam ne ma nga làmb lépp xam nga normalement genn wàllu néeg bi mun ta làmb kër gi mais nag yonent bu fekkee ne yaramam lay suul foofu itam lañ ko suul ak lañ lay xéewaloo la yëpp yonent leen bi ëpp yaata yaata salaamun ala juz'in tadammana kullahu maa ngi nuyu partie bi nga xam ne moom pourtant moo moo mujj ëmb lépp bi taxsiisi rabbin jaadali bi takarrumi yàlla moo ko ko jagleel yàlla man yàlla mi nga xam ne moo ma moo tabe may ma ci teraangam li ma doon ñaan fa ma kuntu arju tuula dahri wajadtuhu ma kuntu la ma nekkoon arju di yaakaar ko tuula dahri diirëb sama jamono wajadtuhu am naa ko donc bésu feet la war a dowaay bi tafdili rabbin waahibin fii takarrumi maa ngi ko am ci ngëne ci gënal ak borom boo xam ne mayekat la ma te buy maye day maye maye ku tabe xam nga arab yi bu noonu ka ma gis muy joxe day ragalul ñàkk yuti ata man laa yaxaafu alfaqra salatun ala yasina taha muhammadin wa ashabihi uli nada wa taraxum mu ne maa ko fa wax mu ne wax naa itam foofa raaniya qad atlaqtu tarfi taamuda ila alqubati alxadra bi xujrati ahmada fa lillahi ma agla wa ala manaratan tudallilu chamsa alaarifina muhammada mu ne maa maa ngi nii kat waneef na ma sama bopp may xool rek te maa ko tey di xool rek sans réserve xubba bi nga xam ne mooy xubbatul xadra bi nekk ci néeg yonent bi mu ne ak a cher ak a kowe manaara boo xam ne moom moo moo moo tiim chamsul aarifina muhammad alayhi salaam walillahi ma ala almadinata innaha maqarru xabibin faaqa majdan wa sudada muy tagg yonent bi ne yonent bi foofu mooy saxwaayam moo tax yonent comme moom ci teraanga ak ak càng fare na ñëpp kaw dëkk ba fare na ñëpp kaw moo taxoon bàyyi ne ko yaa taybata almustafa yaa tiba rayaaki alxusnu ajmau yulfa fi muhayaaki alaw ci makkata zaat albeyti is sharufat bi beyti walbeytu min taaha fa bushraaki yonent fooral yëf yi te yonent nag ci yow kon nag yaa gën a foor aha wa fiiki abu xafsi siraaju imaamuna wa usmaanu zu nurayni wal faydu wal faydu wal jada mi ngi ci yow itam wa fiiki qaraaru al aali wa sahbi saadatin wa sabcuuna alfan laa xisaaba lahum gadaa wa rawdatuki algarraau la shakka jannatun wa minbaruki saami alayha muwattada yëpp mooy yi mel lewoon Medina sànq abu xafsi nag fi mooy Omar al Farouq Siraaj Ousmane a ngi fi Zunnurayn al faydu wal jadaa sax maanaam may yu sotteeku rek ak njëriñ lu dul dagg yëpp mi ngi Medina te itam ahlu bayti fi lañ nekk asxaabu rasulilah fii lañ nekkoon sang yi fii lañ nekkoon ak nag juróom fukki junne yoo xam ne yàlla du leen xisaab juróom ñaar fukki junne yoo xam ne yàlla du leen laaj dara bés penc wa fii wara wa rawdatuki lgarra la shakka jannatun yéen wax na ne maa bayna bayti wa minbari rawdatu min riyadil janna moom la woy foofu mu ne amul benn werante sa minbar bi itam minbar bu kowe bi amul amul amul ne amul werante ne moom itam ci aljanna la bokk maanaam moom itam luñ luñ saxal la mu dëgg ma nga fa ba tey man sama sama aj gi ma mujj a def yàlla daf maa defal ci barke Baye loo xam ne daf koo defaloon Baye mu nekk lii ñu ko sama Baye nee na taalibe yàgg naa bëgg lu sëriñam am mu ne moo tax bu sëyri bëggoon a gis yonent jaaratan ndax sëriñam abu abu mursi daf koo amoon man la waxuma sax ne bëggoon na waaye dama dem daal nekk ganaan nguur gi alors maa ngi ànd ak Moustapha Lo rahimahullah maa ko yóbbaale ñu dem ba Medina waa ji amee kalimal axira waaye ne ma heure sàngam ñëwal ci buntu sàngam xaaral ma fi yàgg koo bugg a àndal naa ne Moussa la ndax gisuma keneen dem foofu nit ñi génn di génn di génn di génn ba daanaka ñaari ñetti ñeent des ci biir mu ne dugg dugg mu tëj ñu nekk ci biir ñun rek ci ñu dem nag ba ci am bi xaraab ba fañ daan buuxante fekk maa ngi amoon nisar julli yu des fanweeri rakka ak juróom-benn foofu laa ko mottalee Moustapha Lo ñu moon ko bi Baye waxee ne maa ngi julli amaami xaqu jalla jalaaluhu wa xalfi imaami hashimi bi isaay cax boobu ma ne ko fii la woon Baye dafa ziyaare ba ne wëlba rek ñu ñu ñu liqaam xam nga kon day jox gannaaw rawda bi jëblu penku di julli loolu rek lay wax maa ngi julli yàllaa ngi sama kanam suma suma ilimaan nekk ci suma penk yi suma gannaaw loolu rek la ci julli ma ne ko fii la woon ñu dem woon ko woon ko woon ko woon ko Moustapha ne man de man de jàng naa fi juróom-ñetti at ci réew mi Moustapha waaw ma ne ko lu ne day xaar bés amina walilahi ma axlaaki fii ki tafajja mu ne madinatu madinatu ma axlaaki fii ki taraddadat malaikatu rahmani tajzimu sarmada madina mu ne ko yaa yaa cher malaaka yi yónn malaaka yàlla yi fii la nekkoon di dem ak a ñëw rek doy na rek jibril waaw walillahi ma axlaaki fii ki tafajjarat yanabiu irfani li ahmada sayida yaa cher ndaxte loolu la loolu la ah makka ah makka mu ne ko mba mbelli mba mba mbelli xam-xam yi fii la fii la ballee te yonentu la te mooy sang bi walillahi ma axlaaki mawtiya ahmadin wa marqadahu is jaa ila xalqi murshida yaa cher ndax fii la yonentu daan dox dañ daan egg Medina du benn yoon de buñ tegee suñu mbaxi fa rek bàyyi naa dem leen dem leen de fii fu ngeen jaar rek xamal ne yonentu mas na faa jaar di ñu motiver rajaa'iya fawzun bil muraadi wa xuqa lii bi an artaqi dahri wa asbaqa mufrada mu ne sama rajaa yi sama yaakaar fawzun mooy texe gu spécial bil muraadi ca la ma namoon am la ma namm wa xuqata wareef na mën naa am lii pour man benn artaqiya ci bu ma yéegat dahri diirab sama jamono wa asbiqa te ma jiitu mufradan di kenn man kenn salaatun wa taslimun ala sayidil wara ma al ali wa ashabi dahran mu abada mu ne wax naa fa tajarrabtu min malbuusiya al yowma muhrima tajarruda qalbi an siwaaka muazima wa in tuftu bil bayti al muazzami qadruhu ilahi fa qalbi xawla daatika xayyama wa saiya bayna saxratayni mushaakilun li saayin madaali fi sifaati takarruma waaw bii nag moo gën a mu ne tajarratu rafle naa an malbuus yi wali sama yére yi ma daan sol al yow ma tey muhriman mbir mu may aji xarmal summeeku naa xarmal naa tajarruda daati kem summeeku sama qalbi sama xol bi an siwaaka walis ku dul yow muadiman mbir mu may aji màggal la ni ma summeekoo sama yére dem fee laalatuñ ma ma xarmal noonu la sama xol bi mel ci yow fa zaatu wa in tuftu ndem wër naa bil bayti ci kaaba gi al muazzami ga di guñ màggal qadruhu su ma wëree kaaba gi ilaahi yow sama borom fa qalbi sama xol bi moom xayyama samp na bergen nim xawla daatika ci pegg sa zaatul aliyati suma yaram wi de mooy toxu may wër kaaba gi waaye nag suma xol bi moom samp na xaymaam féew ma taxoon ñu ne rabiatul adawiya xam nga jigéen ju doy waar la gis na saalihu bu baax sufyaan xaw ma di wër mu ne ko atatuufu bil bayti am bi rabbil bayt ba yow sufyaan sëriñ bu mag la kaaba gi ngay wër wala borom kaaba gi xam naa setam foofu du am tontu rabia am ci saalihiin yi ku ñëw ne ko dama la màggat la de dama laa bëggoon a takk daal ah sama can dafa cher cher ba aw ma ko mu ne ko ah cher na de luy sa can lu ko dundal ma ci lislaam rey ma ci dekkal ma dugal ma aljanna mu ne ko mënu ma ko ku ko man mu ne yàlla mu ne ko aw ma jotu sëy léegi nag bëgguma sëy rek wa saye bayna saxratayni dox bi may dox diggante safa ak marwa mooy ñaari xeer yi mu shaakilun lu niroo la li sayin ci beneen dox boo xam ne ma daa wéyoon na lii pour man fi sifaati ci melo isaatul aliyati takaruman dox bi may dox tey diggante safa ak marwa dafa niroog sëyru bi ma defoon bi ma eggee ci yàlla mu ne war taxal na min taybata daxwata yowmil ahadi thalis min zil qaada ñu départ nag jógee jógee kii nag bésu di bésu lan la samedi bésu dimanche moo doon ñetteeli fan ci weeru aj gi ba tey baa ngi mi dina xam ngeen mi ngi départ kon nag jiitalul aj waa ji waxtasalna fi lxamaami xaram yi am na fa benn douche bu fa nekk ci xaram ba fa lañ sango wala bis na al isaara wa rida wa naalayn lii mooy xarmal mooy mooy yëre xarmal xarmal nag mooy yéene aj ñu bay dañ foog ne xarmal mooy yëre yi déedéet mooy yëre yi waaye boo julee ñaar rakk yéene aj loolu mooy ahram la wa daxalna masjid annabawiya wa sallayna rakatay taxiyati wa zurnaahu wa waddaanaahu ñëwaat na ba tey dugg ci jàkka ji julli fa ñaari rakk taxiyatul masjid ziar yonent bi tàggu ko wala ma wasalna dal xulayfa sallayna rakatay al ihram dégg la bu baax li mu lay wax biit mbir na la nekk bu fa xarmaloon itam baax na mais nag sunna mooy armalee ca zul xulayfa maanaam abyar ali mu julli ci jàkka ji jàkka yonent bi ziare ko ñëw na fi ñuy xarmale ci yoon yi foofu la xarmale léegi dañ ko defar jàkk nekk fa ak ay suuro bi naag yu nekk macha allah wa nawayna alxajja attention mu ne wastaxfarna salaasa yu bëri bal yàlla ñetti yoon wa nawayna alxajja wa ahramna lillahi taala summa labbayna yàlla yéene na aj ahramtu man xarmal naa ko ngir yow labbayka commencé na wa jadidnaa kullama tajaddada xaalu dajeeg ay mbooloo waxaat ko boo yéeg fenn waxaat ko ainsi de suite wasalna wa sirna nahaara kullahu wa bitna fi rabia bëccëg bépp suñu oto baa ngi dem xam naa wéqteen lay doon ndax ndax boobu oto yi luxe amul ñu fanaan rabia wa fi subhi raxalna minha wasalna ila juddata qabla intisaafi nahaar ñu koy egg nañ jëdda fekk mi di jotagul qaasidina makkatal mukarrama walhamdulillahi awalan wa axiran mu limal la maraaxil yi mu jaar yëpp bon ñu yokk tuuti wala ñu bàyyi bon kon nag xaalxu bàyyi ne qultu wax na la fi mu jaar yëpp kii marxala yi yooyu moom musaajid ak abyaar aleg rabiqa zihbaan léegi léegi mu ne wax naa ne ara annama alhaadi al amina ila huna qad xafahu ma faata fikri wa xaatiri araahu qad istawla ala almulki qaiman wa awsaafuhu min kulli batin wa zahir way waxu junju la nag nga mu ne maa ngi gis mu wóor ma ne alhaadi al amin mu yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne mooy jubal ku nangu te moom la yàlla wóolu mu ne suñ borom muy mubtada meneen qad xafahu may na ko ma faata loo xam ne raw na dépassé na fikri sama xalaat wa xaatiri seet naa ba seet daal ni yàlla li ma yónni daal dépassé na suma xel ak suma xaal araahu qad istawla ala almulki qaay gis naa daal jël na yëpp wa awsaafuhu min kulli batni wa zahir yàlla xam nga yonent dafa meloo meloo yàlla yëpp فطه ورب البيت عين وإنما يرى العين غينا غائب غير حاضر mu ne taaha yonent yàlla Muhammad turam la wa rabbil bayti maa ngi gën ci borom kaaba gi aynun jëmm la wala bët la aynun jëmm la wala bët la mu ne wa innama yaral ayna aynan comme nag mu ne yonent bi jëmm la mu ne jëmm ku ku ku ku ko gis maanaam wala nga dem fas gën a gën a safaar mu ne yonent bi te mi ngi koy waat nee na ayn la ayn xarafu ayn wa innama yaral ayna dana gis aynu xaynan muy xayn aynu mooy bu amul tomb xaynu mooy bu amee tomb hmm? kuy gis aynu nga di ca deg tomb muy xaynu mu ne ku koy def mooy xaayibun aji xaadu xayru xaadirin ku di aji teew ci pay mu ne tanawartuhu fi xaalatayhi tawassuman fa lam yumkini tasrixu bil mutazahiri mu ne maa ko seetlu setantal ko ci ñaari xaalam yépp di ko setantal daal fa lam yumkin te jàppandiwul ak tasrixu wóoral mbir man ne ko xaddi ci digg ba bil mutazahiri ci ci feeñ feeñ bi warakibna min jëdda mun nañu dem màkk nag baadal isha al axira wasalna ila zi tuba ainsi de suite mu door bu ñëwatee mu woon leen ni mu ajee aj ak farasa yaakaar naa ñetti dër su mun naa jeexal aj ji incha allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin xam nga tukki ànd ak bàyyi dem neex la de ah Thiam marhaban Thiam Thiam Thiam Thiam yaa marhaban Sow ok sëñ bi برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب برهام باء وراء الحمد لله.
ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نام